salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum gars yi ngeen baal ma de waaye garab bi tamit dafa war a toj cot ndeyam dem liggéey xaw ma jaas la xaw ma bu nu waxee mu force ñu kanamam gi teg ko ci senat bi lu mu xat-xat dina wane boppam kanamam gi di mel ne bàmmeelu nag na dem liggéey li ñuy doon bañal ñoom ñaaxal ñëw di ko bañal ñeneen ñi moom lañ koy bañal na dem liggéey sinab bi du liggéey topp Ousmane Sonko di sinab di xëcc di sinab rek di sinab na dem liggéey toog muy dox dañu ko fi tere buñ ko teree ci Oustaz Modou Fall tere ko ñeneen ñi dañ ko koy tere na toj cottu ndeyam dem liggéey bu ko ñëw sama commentaire yi naan ma liggéeyam la day def nangam day def nii na dem ndeyu liggéeyi comme moromam yi ñi xeex borasa bi bëri na ba borasa bi taxawee ba jaar ci yoon dañoo dem continuer seen activité topp ñu Ousmane Sonko topp ñu jamay di lambar lambar ki simaam di génne kamam gi na toj cottu ndeyam dem liggéeyi jaas bii bu leen ñu kattaloo ndaye li ñuy bañal ñeneen ñu duñ ko ko dangul moom cottu li waay duñ lëfal ndeyam dem liggéey bu ko waxee mu forcé ñu kanamam gi di mel ne ndëxit bu fanaan yow kattal sa ndey waay yow soof nga torop